waaw li tax euh, ñu koy def mooy ku nekk xam na ni le 8 mars jigéen ñëpp dañ ko jëloon di ci sargalante ci seen biir ndax journée boo xamante ni dafa waroon àdduna bi waaye comme ñeneen ñaa ngi ko doon organiser ci beneen façon ñun ñu jàpp bés bi tey pour maye ko deret ndax ku nekk xam na ni maye deret lu am njariñ la boo koy jëf tamit euh, yow defal loo ko sa bopp mais yaa ngi koy defal koo xamante ni daf ko soxla te amu ko donc bu fi deret yëpp dajee ñu dugal ko ci banque aussi di ko maye te du ñu fàtte aussi ni ñun ay jigéen lañu ay yaay lañu ay bàjjan lañu bu ñuy waxee maye deret rek ñun la ñuy xalaat ndax jigéen ñi ñoo amoon ay jafe-jafe bu ñu daan accoucher di am ay problème wala ñu am ay problème de santé yoo xamante ni moo leen daan yóbbu ci ci ñuy ñuy euh, ñàkk seen bakken waaye ñoo ngi sant yàlla ndax gis nañ defoon nañ ko daaw def ko ren te bi ñu ko defee daaw regretté wuñ ko ndax bi ñu gisoo docteur bi nee nañu euh, au niveau du département en tout cas résultat yu baax résultat yu rafet lañ fa am mais bu ñu ko mënee tamit ba célébrer bés bi aussi suñu direction générale bi moo ci jàpp commencé ci monsieur Assane Diallo suñu directeur central bi taxaw monsieur Beka Srivastava suñu directeur du site minier monsieur Ibrahima Gaye boole ci monsieur Jean Pierre ni mi nga xamante woon ni tamit ñëwoon na fi léegi ak tamit taxawaayu jigéen ñi taxawaayu membre yi tamit lu ci am solo la taxawaayu travailleurs yi nga xamante ni dañoo ñëw ci suba ba léegi ñoo ngi fi di xaar ñuy sant aussi banque de sang yi ñu jógee Thiès ñu jógee Tivaouane yëpp vraiment daal ñu ngi ñaan lii rek ñi nga xamante ni ñoo ñuy jàppale ñu yàgg ñoo jàppale ñu mën ko Euh, tey jii euh, mën nañoo jàpp ne hôpital bu Tivaouane bi amatul jafe lu jëm ci wàllu banque de sang ci sang yow wax nga ne sax da ngeen ni produit euh, li ngeen koy li ngeen di denc da ngeen may dem ba di ko jox yeneen hôpital yi. waaw bi ñu gisee docteur Sakho barki démb loolu la ñu wax nee na maye nañ fi deret mu dem ba Saint-Louis maye nañ fi Dakar maye nañ fi Rufisque loolu lépp collecte bi nga xamante ni defoon nañ ko daaw ICS apporté na lu bari moo tax ren ji ñu taxawaat fi pour defaat lu mel noonu. niñ ko waxee léegi don de sang bi dafa am solo. parce que ci suñu gox yi ñu nekk ñun ba léegi zone des Niayes bi donc euh, ci département bi nga xam ne man fi lay évoluer ku nekk xam ne déjà au niveau national première cause mortalité bi mooy affaire sotti deret maanaam jigéen mu ëmb wala muy wasindi xëpp deret wala bu wasinee ba pare donc particulièrement fi ñu nekk nii solo yii nag dafa am euh, doole parce que tout le temps foog naa ne mënoo toog ñaari fan wala benn fan boo xam ne doo xëy jigéen boo xam ne du soxla deret ndax léegi li ñuy laaj sax ñun ci consultation yi mooy bu nit ki ñëwee rek war nga natt deretam avant bokkul woon ci kii mais bu nit ki ñëwee rek war nga dem natt deretam pour xam taux anémie bi nan la toll te yàlla xam na ne boo jëlee fukki jigéen presque juróom-ñaar ñoom ñëpp dañu anémie léegi rax ci dolli ëmb bi avancé duñu lekk bu baax liggéeyu kër yaa ngi leen di xaar leneen ak leneen donc bu ñu demee bay wasin tuuti deret ba ñu am bu xasee ba sotteeku rek maara day taal lu ne mun na ci am yaay ju loru doom ju loru ba nga xam ne yu mel nii vraiment dafay rafet torop pour que ñun ñu koy magnifier parce que ICS e yàgg na effectivement ak banque de sang bu cees di collaborer pour di maye deret fu ñu nekk nit ñi nag il faut ñu xam ne maye deret du lu ñuy ragal du dara seetuñu feebaru kenn et que deret ji ñuy may it bala ñu koy sol nit dañ koy xool nemmeeku ko et tout doo di koy sole mais que bu nekk rek kii loolu mooy li am mais accident yi gis nañ ko bu accident yi amee aussi souvent dañuy soxla deret mais léeg-léeg nit ñi dañuy confronté wu ak yooyu maa ngi koy wax sànq rek ci bi may wax français que ni ñun ñu ngi am suñu benn agent matul sax weer jabaram fii la feebar ñu évacuer ko Tiwaawan mu tëdd fa soxla ay poche deret ñun bi ñuy yeete xaaju guddi la ñu dem heureusement bi ñu demee Thiès lañ mujj dem ñu yee ay donneur ñu jóg avant 10 heures may nañ ñu ñu traité kii et tout bi indi Euh, deret ji si hôpital bi ñu sol ko ko yàlla def ñu mun ko sauver de telle sorte que vraiment disponibilité sang bi dafa am solo parce que wax nañ ko sànq deret du lu ñuy jaay pharmacie bu ñu ko doon jaay peut-être du ñu am problème mais deret du ñuy jaay nit rek moo ko mën a may doomu aadamaam donc li ñu def ni ñuy gërëm jigéen ñi nga xam ne ñoo ko organiser et que bu mënee di répété wu toujours aussi luy am solo la ci sunu zone yi waaw loolu mooy li ñuy wax rek retard de trop yi les R de trop parce que femmes yi dañuy nekk fii li ñu tàmm mooy toogal ba mu gën a ñor te xamuñu loo nekkee donc borom kër yi dañuy tëye goro yi dañuy tëye njëkk yi maanaam kër yi lay njëkki donc ñu nga xam ne tëye bi day yàgg suñu demee aussi ba nga xam ne egg nañ si hôpital bi foofu léeg-léeg mu am retard parce que le temps que fay nekk di xool seet nañu nit que pour mu egg parce que ay pyramide la day jog fi gën a suufee di yéeg ba ci gën a kawe mais ni muy gën a gaawee wax dëgg yàlla prise en charge bi di gën a gaaw mais na muy gën a yéexi aussi nit di gën a loru parce que deret buy sotti dafa mel ni robinet buy tijji te yow xamoo fan nga koy arrêté ndax luy jógee ci biir la su ko defee it foofu ñuy ñaaxaat rek ci visite yi déjà parce que visite yi dafa am solo yiñ leen di laaj du laajte xaalis rek pour def analyse pour natt nit ki deretam su ko defee teel boo xamee ne dafa amul deret nga mën ko en charge muy wasin ndax loolu muy am noonu ñu mun ko préserver loolu moo gën a tax vraiment ñun ñu bëgg ñuy dem visitu di toppatoo gis ngeen ne léegi sax bañ nañ ko ba nit ki bu avant dañ la daan toogal rek boo jógee léegi loolu amatul nit bu demee ba nga xam ne matu bi soreetul dañ ne la lu mu gàtt gàtt fukki fan ak juróom yu ne war nga koy gis te léegi dañ ñu bu xasee bu wan na lool rek war nga ko commencé di koy yee ca wasin ba la mu war a yóbbu la mu war a lekk la mu war a def cetera vraiment waaw loolu lu am. mooy que man may président bureau régional bu association des donneurs bénévoles de sang Andobees dañuy xamle ne rek don de sang fii du fi gan ci ICS parce que am na partenariat bu am entre direction bi ak euh, Andobees ak hôpital régional bu Thiès depuis 2000 weer wu ne ñu ngi ko fi organiser at mu ne boobaak léegi donc euh, dinañu dugal poste de sang yu bëri ci hôpital régional bu cees dinañ koy def aussi ci Tivaouane souvent. mais loolu li liñ ci xamle rek mooy que ñun dañ ciy remercier direction bu ICS parce que li ñuy wax promouvoir le don de sang pour jëmale ko kanam ak lu ko yombal muy produit boo xam bi kenn du ko jaay kenn du ko jënd kenn du ko defar yàlla ci nit rek la koy jëlee nit jox ko nit kon ñoom ñi ñu koy yombal dañ leen di remercier bu baax a baax loolu moo indi journée femme yi tey nga xam ni ñi ngi koy def en collaboration avec l'association et la direction di leen encourager ñi continuer di ko def. kon banque ci amatul problème. banque de change bu Thiès on peut dire que le taux de disponibilité am na solo trop parce que xam nañ ne ni mën nañu seede que ni demande bu jóge fii ci médecins yi nekk ci ICS wala sage-femme yi malade bu am bu ñu am bu nekk dans la région wala bu nekk Tivaouane même bu dee week-end banque de sang bu Thiès daf koy satisfaire on a beaucoup de cas yu ñu mën a citer parmi les épouses des travailleurs ou les enfants des travailleurs ou des travailleurs en passant. mooy bésu jigéen yi. ñoom ñu décidé ni bés boobu dañu koy euh, dañ ciy def maanaam don de don de sang don de sang boo xam ne bii dañ koy collecté pour jox ko hôpital régional bu Thiès wala hôpital bu Tivaouane bi ñu gën a jege euh, deret nag moom comme ni ko kenn kenn waxee fii léegi kenn du ko defar nit moo koy mën a jox moroomu nitam euh, donc ñi ngi rafetlu encore que liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi ci biir entreprise bi. nangu nañoo participer vraiment jàppale sunu euh, collègue jigéen yi pour ñëw ñoom tamit joxe seen deret wane ne daal fii jigéen ak góor yëpp ci biir entreprise bi donte jigéen ñi barewuñu sax waaye ñi ngi liggéey vraiment en toute symbiose te direction bi tamit rafetlu na dañuy def te fu ñu leen solicité fu ñu solicité ci maanaam action yu demee nii dañ koy rafet dañ ko dañ ci ànd te lépp lu ñu ci mën dañ ko def pour soutenir leen donc loolu laa mënoon a wax ci lu gàtt daal ci mbir mi waaw voilà ci bon RSE ICS moom gaa ñëpp xam nañ ko ci RSE euh, xëy na jamono yi ñu weesu jafe-jafe amoon na ay jafe-jafe yu tax ñu xawoon a téye suñu loxo waaye mosuñoo téye suñu loxo ci ndox plus de trente mille personnes ci gox bi fi ñoo leen di may ndox deret mën na ne presque beneen ndox la moom tamit bu suñuy jigéen jógee di ko joxe. du ñu def du ànd ak ñoom ci loolu parce que ndox bu ñuy naan wala deret bu ñuy def ci yaramu nit je crois que ñaar yooyu c'est des choses fondamentales pour la vie et donc RSE ICS nag comme entreprise baa ngi delluwaat ci fu mu jógee woon maanaam delluwaat ci un régime entreprise performante danañu reprendre sunu RSE yaatal ko lii dañuy accompagner rek sunu euh, mbokk jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo jël décision bi te fuñ ñu woowee nag ci lu mel nii ñu ànd ci ñoom soutenir leen. a noble cause and the blood donation is very important for the social life because the blood donated by the employees and staff of ICS can be useful for uh, hospitals to meet the requirement of uh, patients who come as emergency because of accident or for the delivery of uh, baby. and other operation needs. So it's really a very, very noble cause and ICS management is very happy to be part of this activity by supporting in whatever best possible way we could support. And we wish all the very best to AFIX, the association, and the staff and employees of ICS to continue doing this noble activity. Thank you.